muhammad yaa leen gën muhammad yaa leen gën yaa leen gën yaa leen gën yaa leen gënee ana soppey muhammad rasulullahi ñun biñ ko gëmee yàgg na lool muhammadu rasulillahi moom it bi mu ñu gënee yàgg na loole Muhammad Aminata yaayam Muhammad Abdallah yay baayam Muhammad banu nee la nanga tànn yaa tànn baytillaay tànn Makka Medina bayti Maamur ak Saam tarbi ci Yuusufa neex baat gi ci daawuda nguurug suleymaan ga yow seyduna muhammad yaa ko denkaane xanaa xamul leen ni yoneen bu ne balaa ñëw day dekkalaare ay mbiram kon ndaa naanu ndaa naa yow Seyduna Muhammad yaa leen di may li nuy daane kenn du Seyduna Muhammad tar bi ci Yuusufa neex baat gi ci Daawda nguurug Suleymaan nga yow Seyduna Muhammad yaa ko dénkaane xanaa xamuleen ni ku fi am alal mbaa nga am xam-xam mbaa nga am daraja lépp yaa ngi darajay Seyduna Muhammad mani bi bëgg naa la wallaay Seyduna Muhammad ak sang bi bëgg la war na Muhammad way la war na ma jóg nanu màggal yónneen yaa rasulillahi sayyiduna Muhammad nanu màggal yónneen nanu màggal yónneen sayyiduna Muhammad way la war na ma gañ la war na ma sayyiduna Muhammad nu xamee yónneen bi Mawdo yaa ko waral sayyiduna Muhammad ñu xamee yónneen Mawdo yaa ko waral sayyiduna Muhammad nu xamee yónneen Mawdo yaa ko waral sayyiduna jaami yonnen mawda yaa ko waral sayyiduna muhammad ay bëgg naa yal yonnen sayyiduna muhammad al jaami yo ñu leen di waayal yonnen sayyiduna muhammad ay bëgg naa yal yonnen sayyiduna muhammad way la war na ma gañ la war na ma sayyiduna muhammad wallaay sangi bi bëgg naa نعوذ بالله من شر الكفار ومن شر النصارى ومن شر السلاطين ومن وزين وجن ثم ذي قد فمن وعين وإن وشياطين وظالم ومنافق وذي قسد ومن تفسق يا رحمن النجين من النصارى وما حفوت طريقهم يا الله يا خي يا من خال الدوني إني دعوتك ذا خوف فود بيدي يا جاهل القال بين الكاف والنون ربي اشرح لي صدري wa yassir li amri waxlul xuqudatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq bu baax te di leen baal di ñaan yal nañu yàlla boole jéggal mu mel ni rek a ki ngeen gis muy waxtaan ak yéen nii mooy Idrissa Mbaalo Ndiaye mu ànd ak kuréel goo xamante ni ñu ngi koy wax aljaamiwu muy benn mouvement boo xamante ni mu ngi nekk fii ci yoof a mu mel ni rek dañu am bés Euh, le 10 mars incha allahu muy tàkkusaanu sayduna muhammad fële ca penc yoof incha allah waaye avant tàkkusaan boobu am na lu mel ni formation sur santé de la reproduction ñu koy def ak waa ANJ muy alliance nationale des jeunes ñu koy defee fële ca kër APEX allahu muy le 6 le 7 ak le 8 mars incha allah à partir de 15 heures lay commencé ah mu mel ni rek dañu leen ci woo yéen mbooleem koo xamante ni ni rek yaa ngi ci yoof te ngay jullit ah wax dëgg ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp di wax ni bés bi seen bés la euh, ñun ay doomi yoof lanu te it eh, yonent bi rek moo ñu ñor wax dëgg yàlla mu mel ni dañ jël tagg yonent bi def ko suñu tarbiya ci tarixa bi nga xam ne moom la nekk muy tarixa Seydina Cheikh waaye ci bis boobu muy euh, aljaami boo ko déggee muy turu yàlla boo xamante ne nii dafay rassemble di bolé mu melni ci lolu lañuy dox waye bis bobu mo waral ñu wo ci suñu mbokki murit yi tiijaan khadir layen bayiwun kenn ñu ngi leen di wo ci bis bobu ndax waxtaan wi bëgg nañ inshallah ñu yaatal ci lolu ba ñëpp xamné lepp sayidina muhammad la nan waxtasimoo bi hablillahi jamian wala tafarraqu ñun ñëpp rek dañuy andando ngoy ci buumu yàlla gi mu melni bés bobu loolu lañ bëgg yaatal ndax jamono ji xawna am changement ñun xale yu mel ni ñun euh, ñu ay taalibee waaye suñu xam-xam demeewul noonu ci li nga xam ne mooy ëtt këru diine yi euh, tey léeg-léeg ku ci mel ne man wax loo xamante ni nii sax day xaw a dépassé si yeneen kër yi te fekk demeewul noonu ñoom suñuy kilifa daawuñ def lenn di ci réeroo dañu déggoo woon bala ñuy def dara ñoom ñëpp dañ ko daan yëgoo amuñ woon xàjj ak seen mu wel ni ci loolu incha allahu bëgg nañ ci dox waaye nag di ci woo suñu Euh, mbokk yëpp yëpp wax dëgg ñu si woo ñëpp ku ci mel ne Chérif Mouhamadou ay dara ñu ngi koy woo ah di woo képp koo xam ne rek kilifa nga kilifa diine nga ñu ngi lay woo di woo ki nga xamante ni mooy Abdoulahi Diouf Sarr nga xam ne mooy meeru Yoff di woo Yaay Fatou Thiaw lay moom it di ko woo nga xam ne moom mooy mareenu bés bi ñu ngi koy woo ci bés boobu incha allah di fi woo di ci woo jigéen ñëpp ndaxte euh, weer wi yaakaar naa ne euh, weeru soxna yi la mu mel ne santé de la reproduction boobu am naa njortu ni euh, dina am important pour ñoom mu mel ni rek xam naa dañuy yemale foofu suñu ay kàddu am na nan koo xam ne moo représenté fii ANG bu ko defee rek ñu bàyyi ko moom it mu daal di jàllale ay kàddoom incha allah. ok salaamaaleykum mbokki jullit yi ñu ngi leen di ziar ñëpp di leen nuyu di leen baalaax di leen baalaax waaw mu mel ni comme ni ko suñu mbokk mi waxee léegi nii rek waaw mbirum santé de la reproduction moo ñu fi indi mu nekk sujet boo xamante ni peut-être actuellement nii fii ci Sénégal day mel ni abordé nañu ko parce que dañuy jàpp ne sujet tabou la euh, mu mel ni ki moo ñu fi indi woon le 6 ak le 7 ak le 8 mars de 15 heures à 18 heures muy nekk fii ci kër APEX. ñu ciy ànd ak waa ANJ alliance nationale des jeunes bi seen siège social nekk fële ci point E directeur moo xujja jiite ko comme ni mu ko waxee noonu rek ñu ngi oo képp koo xamante ni chef administratif nga nekk fii biir yoof ñu koy jaarale ci turu la ministre maire Diouf saar di la woo di woo képp koo xamante ni chef religieux nga di ko jaarale si suñu tur suñu wasila maam Abdoulaye Thiaw di woo tamit képp koo xamante ni chef coutumier nga di ko jaarale ci la ci ci le nom du saltige du Mbeng ah, di leen woo di woo suñu mbokk mu moroomu jeunesse bi yëpp jeunesse Yofaas bi yëpp te xam ne jeunesse Yofaas bi ñoo ko moom c'est pour une première ñu jàppalante comme ni ñu koy waxee rek gérer l'unité dans la diversité mu mel ni ki mbooloo mooy doole te yenn katu xëddeen dañuy yëgoo donc ñu jàpp ci bu baax te xam ne activité bi suñu activité la ñun ñëpp di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa ah mu mel ni mbokk yi kon ñoo ko gisandoo incha allahu loolu moo waral tey ñu jàkkaarloo woon ak yéen di leen yëgal bés boobu muy le 6 le 7 le 8 di formation bi le 9 di aljuma muy xaw a xat ndax xadaratul juma yeeg yooyu moo waral ñu jël samedi bi muy le 10 incha allahu di ci woo mbooleem jullit incha allah surtout suñu ay kilifa suñu ay papa suñu ay yaay ndax ay gune lañu te it c'est la première fois première sortie bi moom moo nekk nii. te soxla nañ leen ci li nga xamantene ne xel ndax ay gune lañu te yit gune yaakar naa ne xëy na na am doole ja waye du am xel ma waye yeen nak ñi suñuy mag wax deug bu ngeen ñu jigee yaakar naa ne xel moomu noonu dinañ ko wara mëna am ndax suñu euh, mam euh, al amin daf ko doon wax dañ ko doon wax ne ko maam ñaanal ñu ndax ay xalé lañu te xalé kat mënta muus lu uppi atam waye mu xamal ñu ne kat xalé bu ci jogul di tok ak mag ñi mën nga muus la upp sayat kon boog ñu ngi leen di woo yéen suñu ay mag ngeen xelal ñu te it tette ñu wan ñu yoon wi incha allahu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. علي وابنها رستي ومن بداوتي في منزل مالك نينا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما آمين ana soppey yonen summa punu xawfin wasudun saaba ya loxo yi ci kaw saaba ya loxo yi ci kaw saaba ya abubakar saaba ya ana omar saaba ya loxo yi ci kaw saaba ya soppey sëñ Babakar Si sa ku mu jaral loxo yi sa ku nabi jaral loxo yi sa nabi seyduna muhammad ku nabi jaral loxo ye ku nabi jaral fitasul man nabi jaral manikum ka ci jaral loxoy sa Muhammad ibnu Abdalaay ja Muhammad ibnu Abdalaay ja Muhammad ibnu Abdalaay ja Muhammad ibnu ja ibnu Abdalaay ja doomi Abdalaay je doomi Abdalaay je doomi Abdalaay jee Aminata yaay ja Aminata yaay ja ana soppe yi yónneen kun na bi loxo yi ca kaw ana soppe yi sëñ Babacar kum ci jaral loxo yi ca kaw Muhammad moo dib turam lu baax yelloo na nabi yow loo mën a wax doo paase kii baax na man ni mboolem xéewal yeeg teraanga yi yaa ko waral nabi suñu wasiilatoo gir gir ñaangi ana soppey sëñ Babacar kum ci jaral loxo yi ca kaw يا ربي صلي على المخمود سيدنا واقبل صفاءته فينا ولم على النبي وعليهم آه، أجمعين سلام ربنا دائما أم بسبهم